salaamaaleykum gaa yi salaamaaleykum askanu Sénégal Ousmane Sonko yéex bi muy yéex nii yëpp di yàgg ci yoon bi jógee Ziguinchor di ñëw Dakar li ko waral mooy dafa bëgg suba Popenguine bi maanaam feetu njaago yi chrétien yi ah mu amee doole côté Mbour suba wala gannaaw suba suba lay commencé mu jéem a jaxase FDS yi ak catholique yi ba nga xamante si nii bu bokkaa amee ñu mën a sànni ay lacrymogène wala di wala di di wala wala di sànni ay gaase di leen gaase ñu ne waaw kay état bi la nag état bi ñoo yàq fetu chrétien yi état bi ñoo yàq fetu njaago yi loolu la bëgg bu ko àll bëgg a créer li nga xam ne moom mooy diggante buur ak yooyu moo tax buur lay gënee fetu chrétien yi fetu njaago yi maa leen koy wax njaago yi seen fen yi popagine bi suba la suba lay commencé di dem diggante fii ak lundi bëgg na moom créer bu ko bantaxal ko état bi looloo tax muy yeexantelu day manipuler seen manipulation yi du jàll de seen mani